yaa xayra dayfin ataa bil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bilaa auzu billahi min aseytaan rajim wa inni u'iizuha bika wa zurriyataha min aseytaan rajim rabbi auzu bika min hamazati sayatini wa auzu bika rabbi an yaxduruni ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi sant Cheikhuna Cheikh du Bamba di ziyaare mbooleem ñi nga xam ne ñoo ñuy teewlu ñëpp ci réew mi di leen nuyu bu baax di leen siyaare te di leen ndokkeel bu baax ci weer wu tedd wu màgg wi nga xamante ni ci lañ toll te mooy shahru ramadan weeru koor nag suñ ko waxee dafay weer woo xamante ni euh, weeru ngëneel la waaye weeru suñu borom la weer la woo xamante ni itam Euh, suñ borom daf ñu ko indil ngir ñu dellu siwaat ci moom ndax euh, koor dafa bokk ci yi nga xamante ni ci ponk la ci benn ponk ci ponk lislaam yi ndax Seydina Jibril alayhi salaam dafa am bis mu fekk yonent bi sallallahu alayhi wa mu toog saxaaba yi wër ko mu ñëw ba agsi ci kanamam daal di jël ñaari bëti oomam teg ko ci ñaari bëti oom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ñu ko xaddis nettalee daal di koy laaj ne ko dañoo bëggoon nga xamal ñu suñu euh, imaan bëggoon it nga xamal ñu suñul islaam bi mu koy wax islaam nag ponk yi daf caa boole weeru koor te mu nekk euh, ñaareelu ponk kon ponk la boo xamante ni bu suñ boroom fonk la waaye jullit bi bu weeru koor ñëwee lépp loo xamante ni daana ko def te muy loo xam ne ab safaan la dafay jar ci moom mu yeesalaat ruwam jéggaluwaat boroomam ay bàkkaaram delluwaat ci moom dellu ci moom googu nag euh, suñ borom dafa wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne fukk yu njëkk yi yërmande suñu borom la képp koo xam ni woor nga li ko tàmbalee ci bis bu njëkk ba fukki mat am nga yërmande suñu borom su suñu borom nangulee sa koor fukk yi ci digg bi mu ne njëggal la ci suñu boroom képp koo xam ni woor nga fukk yi ci digg bi ba ñaar fukki fan yi mat am nga njéggaluk yàlla fukk yu mujj yi xetxun minal naar la képp koo xamante ni woor nga fukk yu mujj yi suñ borom goreel na la ci sawara doo bokk ci ñiy dem sawara kon nag loolu rek jar na bu bisu bu weeru koor ñëwee ñu waajal ko te ànd ci ak sell te fexe ni ko suñ borom santaane ñu defe ko noonu euh, weer la woo xamante ni weer yëpp fukki weer yi ak ñaar mooy weer wi ci gën a tedd mooy weeru koor muazzaman hinda rabbin laa sharika lahu wa hinda ahli tuqaa wal xilmi war rasadi lu ñu màggal la ci eh, suñu boroom mi nga xamante ni desu ko bokkaale waaye ñi mbooleem ñi nga xam ne ñu ragal yàlla lañ wala ñi nga xam ne ay borom xam-xam lañ wala ñiy way ay way jub ñépp itam fonk nañ weer wi te màggal nañ ko lool kon nag weer la woo xamante ni weeru ngëneel la weeru tawféex la weeru barke la kon li ñuy digal sunu bopp di ko digal mbooleem jullit ñi rek mooy ñu bokk ko waajal te buñ ci yeggee itam euh, suñ borom comme euh, ñu ñu fexee am yéene woor ko ba weer wi jeex te it lii nga xamante ni dañ koy xewal ci jamono ñuy wax naan dañuy tëj koor geek dañuy waajal nangam ñu xam ne loolu du dara mbirum yàlla moom bu xasee ba tàbbi yow mi nga xam ne ab jullit nga lenn rek moo la ci war mooy fexe profitoo ci ci sa diggante ak sa borom nga laabal sa jëmm laabal sa ruu waaye dëkkmal sa borom itam ci lépp loo xam ni digg na la digal na la ko ci nga fexe koo matale ba mat sëkk kon nag noonu rek la demee ndax alxuraan dafa wax ne yaa ayuha allazina amanu kutiba alaykum siyaam kama kutiba ala allazina min xablikum laallakum tattaqun nee na yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm yàlla loolu alxuraan wax suñ borom waral na ci yéen koor mooy faratala ci yéen sañu leen koo bañ a def comme niñ ko digale woon ñu leen jiitu woon nee na kon bu ngeen ko defee ndax ngeen ragal yàlla ragal yàlla googu nag dafa dafay doon loo xam ni boo jógee ci koor gi daf laa war a topp warta doon loo xam ni danga koy def bu koor gi jeexee nga delluwaat ci say mbon mbon delluwaat ci la nga nekkoon waaye boo jugee ci koor bu fekkee ne suñ borom nangul na sa koor te dëgg la nga koy xamee mooy boo jugee ca koor ga da lépp lu bon danga koy seexlu lépp lu ñaaw da nga koy seexlu lépp loo xam ne suñu borom gërëmu ko loolu danga koy seexlu da nga koy war ginnaaw ci lu jëm ci wàllum weer moom la ñuy wax ci yóbbalu bis bi ndax bu ñu waxee ne weeru koor feeñ na euh, ni ñu ko sëriñ Abdul Ahad Mbacke mu sëñ Touba waxee woon dafa waxoon ne su fekkee ne maanaam dem nañ ci euh, weer bii ñu nekk tey di weeru saabaan ba am ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ñu wax ne weer wi feeñ na li ñu waxee feeñ na itam mooy gis nañ ñoo xamante ne ñu màndu lañ ñoo xamante ni bokkuñu fu ñu nekk. kenn ku ci nekk wax ne gis na ko wala donte ne benn jullit la sax boo xam ne bu maandu la te ñëpp nangu ak maandoom maanaam bu fekkee ne weer wi feeñ na te mu xamle ko jullit ñe kon sañ nañoo maanaam euh, tàmbali koor waaye nag jamono jii ci ginnaaw dañ fay gis am na ñoo xamante ne dañuy toog ci seen barab ba yàgg rek ñu daal di woote ci rajo wala ci télé bi daal di ne ci dëkk ba ma nekk weer wi feeñ na te jubluwuñ ci dara lu dul mokkee jullit ñi suñ ko siiwalee ñi ëpp ci ñoom daal di woor te fekk ne weer wi feeñul loolu moo tax nag foo dem am na amir am na koo xamante ni moom lañ wóolu ci mbir yi mooy nun dañuy sukkandiku ci kilifa yu baax yi nga xamante ni ñoo nekk ci Sénégal rawatina ak ñun suñu féete di Touba bu Cheikh Mouhamadou taxa joxee ndigal ne weer yu feeñ na bi sàngam dañuy daal di wari dañuy daal di woor mooy da ngay bàyyi ba fanweer ya mat ci saxbaan su fekkee ne mat na nga dugg ci benneelu fanu Ramadan kon da ngay daal di woor su fekkee juróom-ñeenteel ba nag fan ya matut te wóolu ndax weer wa lañ la ca wax dëgg la am déet da ngay bàyyi ba fanweer ya mat bu ko defee nga daal di soog a mën a euh, tabi ci koor gi kon loolu moom mooy yóbbalu bis bi di wax rek ne yàlla ñu suñu borom dugal ci bismillahi rahmaani rahim te ñu yegg ci ci alhamdulilahi rabbil alamin te woor ko ni ko suñu borom bëggee te suñu borom nangul nu suñu koor yaa xayra dayfin ata bil bisri wal madadi nga xamante mooy naafila bis bi naafila bis bu njëkk bi euh, jële nañ ci Malik euh, mu wax ne anil Malik anil nabi sallallahu alayhi wa sallam xaal man salla asara rakaatin euh, bi xamsati taslimatin yaqra'u fi kulli rakaatin bi fatihati alkitab maratan wa inna anzalnaahu maratayn wa qul yaa ayyuhal kaafiruuna maratan wa qul huwa allahu ahad maratayn xaramallahu jasadahu an ala naar laa yasalullahu xaajatan illa ataahu iyaha nee na yonente bi sallallahu alayhi dafa wax ne bis bu njëkk ci weeru koor laylatul awal nee na képp koo xam ne julli nga ci fukki rakka def ci juróomi sëlmal mooy boo jullee ñaari rakka dangay ngay sëlmal nga julliwaat ñaari rakka sëlmal ba muy juróomi sëlmal bu ko defee dangay am fukki rakka nee képp koo xam ni def nga ko nee Euh, rakk bu ci nekk nga jàng ci fatiha benn yoon jàng ci inna anzalnaahu fi laylatil qadr euh, ñaari yoon jàng ci xul yaa ayyuhal benn yoon xul huwa allahu ahad nga jàng ko ñaari yoon nee na suñ boroom dana araamal sawara ci sa jëmm nee na boo ko defee rek suñ borom dana la jéggal ci sawara dana la jéggal ba doo dugg sawara nee itam fa nga ko defee ca jotaay ba doo ñaan yàlla mbukk mbir lu dul ne suñ borom dana la nangul ñaan googu nga ko ñaan kon loolu moom mooy naafi la bis bi euh, na ko ñëpp déggee noonu te ku ko suñ borom mën loo it nga def ko ndax la moom lu baax la te itam dana waral say tiyaabay koor dana yokk kon yàlla nañ suñ borom dimbali ba ñu yegg ci ci alhamdulilahi rabbil alamina ci ni ko suñ borom santaane te def ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërë ngeen jëf yaa xayra day finaata bil bisri wal أهلا وسهلا وترحبا بلا